te ji nag dañoo dajale nit ñi pour ñu waxtaan ci maanaam naka la ñuy defaat pour xool texte bi nga xam ne moo fi amoon ndax 2008 lañ ko jëloon te gis nañu ci diggante bi lu bëri changé na. am na lu bëri lu fi xew ba tax na xam nga léegi ay jumtukaayu xarañ yi internet bi développement numérique bi. tax na léegi dañoo war a xoolaat texte bi naka lañ ko adapté ba pare pour mën a gën a protéger les données personnelles pour nit ñi gën gën a gën a gën a gën a gis seen bopp ci ci ci ci ci ci données ci carte de données carte personnelle ba nga xamante bi ne joytu ku am ku am loola métti dañ ko saafara donc loolu loolu moo wundu rencontre bi tey te loolu lo xamante ne lu baax la loo xam gouvernement bi da koy rafetlu te bu ñu paree ba gis ne texte bi maanaam lii la ñëpp wax am solo lii lañ ci changé danañ ko jël ministère de l'économie numérique dañ ko jël djébal ko gouvernement bi gouvernement bu ci paré dañ ko djébal assemblée nationale ci ci fan yu néew donc lool moy li nga xamanteni bi ni dañ koy rafetlu ji ndax texte bi euh, comme li ko secrétaire général waxé légui euh, texte de 2008 la la lañ ko bindoon té ku ne xam na euh, technologie ak li muy doxé lu mu wax deug yalla 2008 xeyna si ñun ñi ci sañu temps 2008 c'est 10 ans c'est 20 ans mais ah, si si biir si biir euh, société euh, numérique bi 2000 dafa mel ne 100 ans la si ginnaaw kon lu bare xew na fi lu bare am problème yu bare tegu na si suñu kanam te itam bés bu ne ñi ngi gis ne am na lu bees yuy ñëw li nga xam ne nit yaa ngi koy xalaat di si liggéey xarañ si loolu te loolu tam dafa mat am ñu accompagner ko euh, sànq si si si tubaab waxuma problème mu euh, banque yi ak problème mu euh, banque électronique yi monnaie électronique bi loolu ku ne léegi am na ko nga jàng nga ñàkk jàng ku si nekk am nga sa benn banque électronique bi nga xam ne yow wala benn monnaie électronique bi nga xam ne yaa ngi koy doxal kon loolu yëpp ay yu bees li nga xam ne ne dafa dugg si biir liggéey bi nga xam ne moom leen doon liggéey te nag mu dugg si suñu ay mission si mandat bi nga xam ne lañ jox CDP ñu war nag seet naka lañ koy dugalee si suñu loi loolu moo depuis daaw 2008 so leen ko fàttalikoo la euh, def ben séminaire o ñëpp nag ndax dama si dama si taxaw bu baax parce que euh, bëgguma ñu xalaat ne loi bi waa CDP dañu tëju si seen biir bureau yi rek indiwaat beneen loi déedéet dañu o ñëpp def séminaire bu mak tok ñaari fan ba ñetti fan au acteur yep ne len ñew leen na ku sa xalaat ak li nga xamne yow mo la mo la mo la ñor ak li nga xamne yow lolu moy sa préoccupation moy sa souci nga proposition pour ñu changer loi bi ak nak lañ ko wara changer nga nga wax ko ñu tok lu discuter ñun ñep ci suñu biir te deglu ñep nak bu ñu suñu ay bureau nak def ben comité de comité de technique bi nga xamné mo moo nak nag proposition yooyu xol leen seggal leen toppatoo leen liggéey leen ba nga xamné tay un an après ndax at jallana un an après ñu mëna togaat toogaat owaat ñëpp acteur yëpp toogaat ñu leen légui nak li ngeen ñu waxoon draft bangi ni avant projet de loi bi dafa sukkandiku si li ngeen ñu joxone comme proposition légui ñu ngi leen kay yebalat ngeen xolaat ko ndax li ngeen waxone mi ngi ci biir li ngeen xalaat mi ngi ci biir amna na li nga xam ne bëgg ngeen ko si yokk wala am li nga xam bëgg ngeen ko si teggi ñu waxtaan biir ba aga si nga xam konsensus. mooy consensus ndax dañu bëgg loi bi su génnee ben acteur bi nga xam ne nga si si société euh, euh, écosystème la bul wax ne man kenn boolewuma si woon. loolu mooy suñu ñun mooy lu ñu bëgg bien sûr nag. àdduna ku ne xam ne xëy dañ am ku ñu fàtte waaye ku ñu rek dañ lay ñaan nga lo si xalaat ne won nga ko si dugal nga dugal ko si ñu waxtaan ñu sét ba xam su fekk ne matna naa dugal ñu dugal ko si ndax dañu bëgg loi bi mu nekk loi bi nga xam ne xëy na du def ki at waaye au moins au moins 5 ans yu baax dina mën a répondre si préoccupation yi nga xam ne ne wax dëgg yàlla euh, ñi ngi koy euh, ñi nga xam ne daal bés bu ne ñu ngi koy dund. luñ si dugal bare na damay commencer par CDP si boppam ndax CDP si boppam muy muy structure bi muy commission bi si boppam dañu ko dañ ko xalaataat neneen. seet ne que war nañ ko joxaat beneen doole war nañ ko gën a dëgëral war nañu ko joxaat ay jumtukaay yi nga xam dinañu dina mën liggéey bi ñu ko sant mu doxal ko kon loolu yëpp mi ngi ci biir loi bi ñi dañu bëgg mu nekk dëgg-dëgg autorité de régulation kon loolu yëpp mi ngi ci biir loi bi ñu renforcer ko renforcer également ay moyens yi nga xam ne moom la war a liggéeyam renforcer également ay missions yi nga xam ne moom mooy ay missions yi nga xam ne moo nekkoon ci loi de bi waye loolu su jalle itam dañu dañu dañu taxaw xol ne ka wax deug yàlla progrès technologique bi dafa avancer dem dem ba nga xamne ne dafa am yu bari nga xamne ne won ci loi bi suma xalaté intelligence artificielle rek damay wax ne ne loi bi waxu ci dara internet des objets loi bi waxu ci dara suma xalaté ne xalaté ne que drone yi nga xamne mi ngeen di bare légui ci Sénégal loi bi waxu ci dara kon amna ay ay ay ay problème yu bari nga xamne war nañ ko xol war nañ ci waxtaan ndax ñun ñi war nañ si wax ndax lépp rek dañuy war a seet ndax gën na si sañu Sénégal ndax gën na si citoyen yi ndax gën na si ñi nga xam ne ñooy société bi nga xam ne ñoom ñooy nekk si biir numérique bi di si liggéey te tamit ñu ñuy société yu am solo ndax ku ne xam na ne que euh, numérique bi dafay dafay génnee xaalis te dafay pousse sañu développement développement wu dëkk

ñu seet ko ñu sàmm ko li nga xam ne daf koy yàqal ñu seet naka la ñu koy saafara